bu nit amatee dëj nekk ci naqar surtout koor bi ñëwagul ngeen def seeni mbubb yu rëy takk seeni lu nekk dem fa sénégalais yi gàtta ngeen xel toogaandu bi ngeen di bàyyi toogaanu ñu lay toggal ay tufeek ay ceeb ngay lekk te xamoo nit ki ndax mën na ko wala mënu ko gàtta ngeen xel xel moom amuleen ko gis nga nit bu faatoo la am importance ci moom fa nga toog nga di ko ñaanal nga koy ñaanal yàlla jéggal ko ñun nag ki ñu perte yàlla def na ne moom nit ku baax la woon doon def sa social ñun suñu xel dal na ndax na xam naa ne jaaga moom directement au paradis la jëm waaye yéen ñi ngeen xamante ne nit day am dëj ngeen ñëw am na ñu gàtt xel ñoo xamante ne dañuy ñaw toogaanu nit ñi tànk ñu ngi gis jaxal yi di duun ñu rangale nag ya nga toog di xaar am na ñu osé ñoo xamante ne sax xam nga lu ñu lay wax waa toggaleen cere ñee naan toggal mbaxal ñee naan toggal daxin yaa xayti mu laanaa fan ngeen ko teg nit ku faatu ay njabootam nekk ci naqar yow ngay xool lu ñu lay toggal ak luñ la dul toggal ak lii la ñu war a def ak lii la ñu war a def bàyyi leen gàtt xel nit da ngay am xel ñii seen njaboot yi taluñu sax lekk bay tal naan yow nga dem fa muuroo sa kol sol sa mbub mu rëy takk say noir fumé curiosité te jàppala ngay xool ku dugg ku génn ku def lii toogaanu ba ngeen fay toogaanu yéen a ngi def ay bàkkaar te aji ki dem sutura la bëggoon lan ngeen fay toogaanu bu ko defee ngeen làng fa wax di wax waxu saytaane kee naan jokkoor maajoor jokkoor leen ki gaañu daa soxla lool daa soxla ay kaawa ki détail ak dugg na fi génn na fi kee naan kee la mu sol kee kolam ga kee da ñëw na ca dëj ba moom de kee da ñëwul pourtant mbokkam la de waa moom lu tax ñëwul bi kii kiiwee lu tax ñëwul bàkkaar yooyu ngeen di wàññi te bàyyi ko aji ki dem soxlawul loolu yàqati mu laa naa Sénégal am ngeen defute am melukaan nit ku faatu loo koy toogaan tànk ñu la gis ñu lay jaxal-jaxal bu duun am na ñoo xam ne dañoo gàtt xel ak gàtt xel tànk jaxal baa ngi dugg dañuy toog rek di lekk di naan yow ñu nekk ci naqar ngay tal lekk ak naan yaa nga gis ñu yew nag ya nga toog rek toogaanu nit ñi di lekk rek di naan lu ñëw nga nguufaan ko am na ñu gàtt xel ñoo xam ne ci ay siwo la ñuy tib lekk yi di yóbbu fan ngeen ko teg ñu ne senegal kenn du ko wax du ngeen changé changement sero yow ku nekk ci naqar daa talal lekk wala naan yow nga ne dangaa talal lekk ka naan ba gàddu siwo di tibb di yóbbu Sénégalais yéen a am député am melukaan balaa maa dee dëj am ñu naan waa joxal sa sa bajan nangam jox ko paas moom de mu ngi bëgg a dem doo ko jox foofu paas e ala kama sala na xira atoy sa sabali bref sénégalais yi am leen xel dee leen dawal yër mande bàyyi leen liggéeyante bi ngeen di def yéen ñi ngeen xamante ne yéen a nekk ci internet bi bu nit faatoo ngeen nekk fanaan gisoon naa déega man kay gisoon naa ne moom kay déega gisoon naa ko feebar baak faatu ga kenn laaju leen dara laaju ñu leen lu ko daloo nag lan moo ko yóbbu borom bët bu réy bii moo yóbbuwaate ñeme ngeen yàlla te dëgër fit Sénégal bàyyi leen ñeme yàlla ak dëgër fit xalaatab yàlla ngeen di jël ne yéen yéen a koy xalaat ku nekk naan moom kay ba ma tëddee kay man gisoon naa ko kay waaw moom kay faatu gi dama ko gisoon yéen laay wax yéen ñi ñuy woowe ay maamoon yéen ñi ñuy woowe ay maamoon dee leen maandu bu nit feebaratee ba yàlla jël ko dee leen maandu soxlawuñu nag lan moo ko dal ndax ki dem sutura la bëggoon sutura bëggul kenn ku ko wili baane bala ngay wax si moom déjà sax xamu leen dara ci moom lu ngeen wax ci moom da ngeen koo sos mbaa ngeen fabriqué ko ndax moom kenn xamalu ko woon dara nag duggul woon ci lenn ba nit dikk a xamal dara maandu leen Sénégal maandu leen te am sincérité nag dee leen bëgg nit te di ca dëggu yéen dem ci dëj yi am xel nit monta yor malaadam di ko faj ba jeexal waxuma ci dëjëb jaaga bii de dama koy généraliser ñëpp la majeure partie des gens nit day yor dem faja faja faj ba jeexal dëj ba ñëw ngeen dem fa toogaandu nit ka am na ñoo xam ne dañuy fanaan looy fanaan lan ngay fanaan kër jàmbur doo ñëw jaal li ngay jaal demaat awaat sa yoon dem ñibbi loo fay toogaandu danga faa mën a toogaandu ba néew bi ñëwaat danga a toogaandu ba famille ba la leen naqari mu deñ ah bàyyi leen toogaandu bi ngeen di toogaandu nit ñi soxlawuñu loolu kenn soxlawul toogaandu bi xam nga lu ñu soxla ngeen ñëw jaal seen jaal massawu nit ñi demaat te nag jaaga dafa amoon sutura nag soxlawul daju puukare làng fa jëmale ilaa yow mi diini soxlawu ko nit ku amoon sutura la ku bugguloon ku ko xamal dara bu leen fa toogaanu jëw di leen fa fekk bu leen fa toogaanu di wax waxu jàmbur ndax bugg ko woon maandu leen rek ngir yàlla maa leen ko ñaan ci njekk xam nga da ngeen di dem ci dëjab jàmbur dëj ba du leen fa yóbbu de ngeen di waxtaan leneen bu leen ko def aji ki dem dara ñoru ko woon soxlawul daray àddina woon xam nga lu ko ñoroon di sànga niw ya di dimbali néew di doole ya di bale jàkka ya di yóbbu ay doon loolu rek a ko ñoroon waa kooku bu faatoo loo war a def ñëw jaale sa jaal ci fulaak faydaak personnalité gàdduwaat say tànk te nemaat loo fay toogaan di laa waxtaan ah nga toogaanu fay laa waxtaan soxlawu ko woon aji ki dem dafa yi dafa yi woon woon ku ko xamal dara encore une fois nag yéen ñi nekk ci internet bi yéen laay wax laaju ñu leen la ko daloon ak la ko dal laaju ñu leen ndax dafa waroon a dem ak warta dem ki war a dem yàlla rek ak ko xam bàyyi leen ñàkk doomu aadama génn àddina nga naan dégg gisoon naa kaat amoon nag moom kay moom xamoon naa ne kay moom dëggoon na fi génn na fi kenn laaju leen dara laajuñu leen kenn laaju leen dara bugguñoo xam sax lan moo ko daloon voilà parce que soxlawul loolu am leen maandute ci seen bopp seen dëkk avancé Sénégal seen dëkk retard ci ay kaawa ki détail wax waxu jàmbur yéen ñu gàtt xel ñi nag yéen laay wax yéen ñi ngeen xam ne fu ngeen gis ndawal du ngeen fa jóge tànka toogu leen lekk lekk la la fa nekk ba mu jeex na ngeen am xel nit da ngay am xel bu dëj amatee dem leen def seenam njaal mu am fu la te dem lan ngeen fay toogaanu lan ngeen fay wax ay kaawa ki détail jëmale ilaa yow mi diini di wax rek sama vidéo nag xoola bee rek fag yàqay ci wulaanaa waru ko woon am ah ña lay gitaaral ña lay manager ña topp sa ginnaaw sa ay staff say fans ñan nga dese ñu dul ñooñu ànd leen ngor te bëgg ko rek te yàlla tax nit dangay bëgg nit te yàlla tax ay way bëgg leen nit te yàlla tax Maria Sine may sa biige Maria Sine maar xam nga lu soxla jamono jii ku ko soutenir suude wook moom soxlawul benn polémique ak coow ak ay wax yu sew booloo leen bokk ndey ak baay yéen waa Ramadaan ak waa Faramareen ak ñun fans yi bu ñu buggee Maria Sine am jàmm dund dund bu tranquille nekk ci jàmm nañ ko may jàmm ci sunu jàmm lay amee jàmm dëggu leen ànd ak sincérité te xam naa ne nag ñi ànd ak Maria muy staff yaag manager ya ñoom moom de sincérité la ñu ànd moom ndax ba ngeen ànd moom ba tey bàyyiwu gën leen koo jàpp gën a suudewu bu saytaane dox ci seen diggante àddina amul solo te ku ci nekk dangay fekk ci jaaga nag fa mu nekk te yàgg na leen a wax ay kàddu yu leer dëggu sincérité la ma sa ànd ak yéen di leen ñaanal ñaan gamu leen doon ñaanal xam ngeen lan ngeen ko mën a fay tey bëgg njabootam gii mu fi bàyyi bëgg ko rek tafu ko bu xaalis tax ngeen bàyyi ko bu alalu àddina tax ngeen bàyyi ko bu matériel tax ngeen bàyyi ko jàppoo leen te jàppante estaf bi laay wax de estafu Faramareen ak estafu Ramdan yéen laay waxal jàpp leen Maria Sinte yàlla tax àddina amul solo ku jékku da ngay baale dee leen baalante ak sama vidéo bi xoola bere fag yaa xayti waru ko woon a am yéen ñi ngeen xamante ne nag dangeen di def ay vidéo ci jaaga nay la muuraay bi nay nekk ci seen bopp yi buggatuma gis kenn génn di wax si jaaga nga doon jigéen muuru woo dafa àndoon ak sutura a ah, doy na waar hello guys yaa timulaana sénégalais yéen laay wax foo ngeen hypocrite égoïste dëgguwu leen gis nga dese jaaga bi bu fa génn dem naan naqar bi nu ngeen ko dundee naqar amul nuñ koy dundee lu dul muy metti bay bëgg dee yéene wante leen jàmm bëggante leen senegale yi foo ngeen yéenewu leen nit jàmm lu dul keroog ba mu faatoo ngeen sol seen garaam mbubb yu rëy def seeni kol ñee def seen mbubb yu rëy ak seeni koppati di paccal poroxal di jooy déggu leen yéene leen nit ñi jàmm bëggante leen amul solo àddina bi yàqati mu laana lu ko fi jar lan moo fi jar xiiroo ka na ŋaayoo nit ka dee nga sol sa mu rëy ñëw di paccal foroxal lu ko fi jar bëggante leen Sénégal amul benn Sénégal gi ñu nekk nga fiy gis nga fiy dund kenn du la yéene jàmm boo deewee ñu ñëw di paccal foroxal naan innaari laay wa inaa xiraay juru xaw ma nuñ koy waxee yéene wante leen jàmm te bëggante bu fa kenn dem nag naan naqar bi nuñ ko dunde lu dul metti bay bëgga dee lañu ko dundee ah doy na waar